ci jàmm moom ministre de l'intérieur ci dikkam ci dëkk bu sell bii di Touba ngir nemmeeku si wàccaayu jongante législative yi jaar ci xalif général des Mourides ngir ziar ko jotaay la bu Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou fedd leen si ay ñaanam jëm ci jàmm gën a law ci biir réewum Sénégal ci biir bu ñu jógee ca Touba dañuy daal di dem ca diwaanub Kolda ndax ci lu toll 100035 ci ay électeurs ñoo daal di bindu ca département boobu ci la ëpp euh, juróomi junni ci ay électeurs ñoom ba léegi jëlaguñu seeni kart waaye matuwaay yëpp nag jël nañ ko ngir élection yi am ci anam yu mucc ayib euh, ca SEDA nag ñoo ngi ca wàccaay euh, yu mujj yi ñeel élection législative yi kañu toogal ca diwaanub Kolda di Bokar Kandé war a doxalee ay contrôleur de vote yuy toppalante kenn par kenn ci waxtu wi ñuy daal di leen jox yenn ci matériel électoral. bu ñu jeexalee formation bi def nañu yëpp ci seen ku nekk commune bi muy dem ñu je ñu del ci document def ci sa benn chemise euh, ñu jox la ak euh, cachet yëpp. ñu fi ñëw sama kii tey si suba si euh, parce que am na ñoo xam ne démb ñu ngi woon ci ex deuxième tour du BFM. mënuñu woon ñëw pour faire la formation au dernier moment on les a appelés vous êtes pour euh, la surveillance ou bien pour la correction ñëw euh, ñu tey dañu leen indi fii pour briefer. ci suba gi ci couloiru siège bu SEDA superviseurs yi ak contrôleurs yi ñëw répondre ci seeni convocation ñu ngi toll ci 447 war a jël départ te du yàgg. kuy dem mu am mu am moto. ñu jox la carburant nga dem. ren moto yi ngeen privilégié privilégié. parce que nawet bi. chauffeur nee na euh, parfois dañu am jafe-jafe pour dugg ci ci biir euh, département bi parce que yoon yi baaxuñu nee na dañuy euh, mën nañu ngiro lépp daal di yemb. ca SEDA ak ci côté administration bi ay réglage yu ndaw rek moo leen dese fii nii nag auto yi daal dinañ leen réquisitionné autorité administrative yi bàyyi xel bu baax a baax ci organisation bi préfet bi daal di joxe ndigal ñu délocaliser centre de vote Gadapara application ñu yóbbu ko ca école élémentaire Gadapara Ouest. centre bi dañ ko yóbbu ci école bu nekk ci yoon euh, aéroport. parce que bu ndox bi nexee foofu dañu mille trente cinq électeurs ñoo bindu fii ci département bu Kolda ñu war a voté ci deux cent soixante sept bureau de vote préfet bi wax ni matériel électoral bi yëpp agsi na ci jamono bi nga xam ne ñu ngi wéy di joxe carte électeurs yi ñu jàpp ne rek cinq mille cent quatre vingt sept cartes jëlaguñu leen woon ci ajuma bi vingt neuf juillet. Euh, dañuy desandi ba tey ci élection yooyu sax euh, ndax nag ci lu toll juróom-ñaari million euh, ci ay sénégalais ñoo nara a wote ji dibéer gi ca ngir daal di li ñeel élection législative yi jamono ji nag ñu daal di jeexal ba lépp campagne moo waral ba plateforme bi ñuy wax veille des femmes te li ko tax a jóg di jàmm ak kaaraange di ëttu jàmm ñooy woo acteur politiques yi ngir ñu ànd ak dal ci bésub élection yi ñu teewlu ay kàddoom moom maître Koumba Fall doon directeur exécutif bu ONG Femme Africa Solidarité euh, ki ko taataan di Abdoulaye la que moom dafa nekk loo xam ni devoir la dañ ko war a def euh, loolu mooy suñu démocratie mais buñ koy def bu ñu fàtte que ni jàmm moo ci war a génn moo ci war a am moo ci war a moo ci war a yàgg donc moo tax ñu suñ message tey mooy campagne bi jeex na léegi nañu nañu nañu nañu gën a apaiser espace yi nañu gën a xam ni jàmm. moom mooy suñu nattangu ah nattange comme on dit euh, donc jàmm mooy suñu suñu ëllëg et donc jàmm la yépp xaj donc euh, ñu ngi woote daal pour que espace politique yi euh, ñu am discours boo xam ni amul benn discours de qui crée buy buy créer tension que population yi aussi ñu dem voté ji ci ci ci calme ci sérénité delluwaat seen kër parce que li gën a fort ci élection mooy dem nga exprimer ce devoir et devoir bi mooy devoir d'aller voter parce que tout citoyen a l'obligation euh, de faire ce droit civique donc ñun loolu la ñuy kii ëttu jàmm nag moom espace bu jigéen ñi moom ak ndaw yi boo xam ne tout le long du processus depuis 2012 dañuy taxaw dañuy waxtaan ak suñu leader d'opinion yi dañuy sensibiliser fépp fu ñu gis que ni am na tension et surtout au niveau des partis politiques la caravane dina jóg parce que ñu ngi leen di xaar euh, seen retour dans la capitale nga xam ni ñoom ñëpp fi nekk pour continuer di wax ak ñoom di leen sensibiliser ci jàmm boobu nga xam ni moo war a sax Sénégal. Euh, ci jàmmi élection yooyu sax la ñuy daal di desani ndax ñaari député yi di Hélène ciin ak euh, faatu Sène ñoom it ñooy woote euh, jàmm daal di am ci élection yi waaye tamit di sàkku ngir wot yi daal di am ci nu mu waree ba tax ba ba benn lëñ ci lëñ ci bañ am ci xelu askan wi Gustave Emmanuel Faye reportage dund bu mucc ayib si fi nga xam ne moom mooy espace public wala politique ñu fexe nag ba du am ay xaañante ak saaga loolu nekk na li nga xam ne mooy bëgg-bëgg ñaari soxna yi nga xam ne ay parlementaire la ñu kenn ki soqe ko fi nga xam ne moom mooy si réewu taax kasa des si zone rurale ñoo moom justice bi mais foogoon naa di génn ci gémmiñu un cadre cadre bu day ni sama jarbaat boobu foogoon naa du génn ci gémmiñam kon ñoo les appelle à la retenue Et on appelle en tout cas l'armée et républicaine, la gendarmerie est républicaine et nous voulons une justice équitable. ki nga xam mooy honorable Hélène moom mu ngi fësal ab ñàkk juboom ak ñi nga xam ne ay politiciens la ñu bëgg politique politiquer cent hectares yu forêt classée yi rax si dolli muy wax si nga li nga xam ne moom mooy gën a jëmmal ak gën a aar alam bi. kon nag buñ koy aménager. ngir yàlla nañu bàyyi xel ne dafa am rôle écologique bu forêt yooyu doon jouer te ñu fexe ba ñu aar Thiès ville ba ñu defar ay infrastructure yoo xam ne dinañu capter ndox miy wàcc mu bañ a ñëw indi ay loraange fii ak ay at xawma ku koy fekkee mais ñu ngi koy alerter tey bu ñu ko def yëfu bukki rek bii bukki bii njuur bii sàmba ñu jël ci jamono jooju honorable député Fatou seen moom li ko soxal moom mooy fexe nag bay jëmbat ay garab ci kaw gi ànd seek lu tolloog ñaar fukki groupement ay soxna changement climatique bi ku nekk gis na ko ndax garab ka defe naa ne ci liy indi taw la garab am na njariñ ndax garab surtout garab yii ñu indi parce que dañ ne dañuy jëmbat njëmbat garab dañ ne bay ci say woom ñun dañu ne njëmbat garab nañ commencé ci biir kër yi def si jàkka yi def ci école yi def ci espace yëpp bu nekk ñu jëmbat ko fa di nga am sa garab am sa ker am sa lépp am sa neexal wax dëgg yàlla loolu kii na ko ndax garab yi ñu fi joxe woon daaw ndax du ren dong la ñu commencé joxe ay garab am na yoo xam ne joxe daaw jéeg joxe nañu am na yoo xam ne nañu léegi mi ngi commencé fleurir. ñaari soxna yii nga xam ne ku si nekk li ko soxal moom mooy jàmmi mi. wax askan waa Sénégal ba jëmal li nga xam ne mooy citoyenneté te ñu def ko si jàmm ndax élection yi ñu jublu mu nekk élection yoo xam ne yu leer lay doon buñ ca noppee Gustave Emmanuel fay dañuy daal di wax euh, beneen ponk ci xibaar yi euh, kii di jëwrin bi ñu denk wàllum biir réew mi moom moomee nag moo daal di dalal kilifa lébu yi ngir dugal leen ca biir euh, gouvernance ngir ñu mën a xelal bu baax gouverneur boobee ñoo ngi toll nag ci juróom-ñett te it ñoo ngi wane seeni pas-pas ngir gunge liggéey bi ci anam yu mucc ayib ma jigéen Diouf li bas lay ndi reportage léegi lu tolloog juróom ñetti kilifay Rebu jël ñeentaf leen ci wetu ki nga xam ne moo di gouverneur de Dakar ngir ñu koy xelal ci wàllum caada ci région wu Dakar gi li loolee nag doon na loo xam ne njiitu réew mi da koo yàgg bëgg tey ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal di koy matal ci kayit ci gox nga yor benn pouvoir boo xamante ni dafay jóge ci état waroo dogal dara jëmale ci ñoom te diisoowoo ak ñoom d'ailleurs ñoom dañ la koy yombal mais boo ko deful sa liggéey mën na sooxe kon gouverneur am conseiller coutumier bu koy xelal di ko taxawu kooku dafa jaadu diggante administration ak collectivité lébu te te loolu euh, buñ ko deful mën na indi jafe-jafe président nag dafa xam loolu xam bu baax yitte waaye tamit dayoo bi nga xamante ni moom la collectivité lébu yeyoo ku ne xam na ni fii ku fi ñëw lébu yi ñoom ñoo la dalal ndax seen yaatu ndax tamit seen bëgg gan waaye tamit seen xam teraanga daal di koy matal ci kayit ITV loxoy kilifay lébu ci ndakaaru musta jóg ci liggéeyu administration bi lee saa su ne sax dañuy ànd ak ñoom di leen gunge ci liggéey bi nga xam ne dañ ko fi amal saltige bii di rafetlu li ni mel vraiment ñu ngi sant yàlla communauté lébu ku ko xam xam ne dafa mas a jàppale état kii daf koy daf koy yaxal rek waaye bu même bu amuloon dañuy jàppale état parce que duñu contre buur ku imaam wax ne duñu contre buur ku ñu bàyyiwul xel nag ñu jàpp suñu njàmbur waaye ku ñu bàyyi xel rek ñu bàyyi la xel te communauté lébu moom Dakar moom kenn mënu fi doxal dara te doo ko si boole yàlla moo def ñu jiitu fi suñuy maam sanc ko ñu am ay valeur ak ay ay ay cosaan yu ñu àndal kon bu état bi ñëwee tey gën ko yaxal loolu damay jàpp mission bi dina ko gën a réussir incha allah. ñàkkul nag ni ñëpp xam nañoo am na ñàkk déggoo ci yenn collectivité lébu ci ndakaaru ak gouvernement bu Sénégal mu waral sax ci jamono jile ñu ngay waxtaanee li nga xam ni moo di seeni suuf ci diggante Ngor Wakaam Yoff gën cee fës aéroport Léopold Sédar Senghor boobee. dañuy desandeek lébu yooyu sax nag ndax gannaaw ba ñu nanguweewee woon seeni suuf kuréel gi ëmb ñetti village yooyu di Ngor wokaam ak Yoff ñoo ngi rafet lu taxawaay uh, bi ci njiitu réew mi président Macky Sall amal uh, ba ñu delloo leen uh, ñeenti hectare waaye ñoom ñooñee nag ñuy xamle ne loole doyul ba tax nag daañu gën a wëyal seen xeex ba tax dinañ ko daañu gën a woyal seen xeex ngir mën a jot seeni moomeel Xadijatu Baaji bi jàlloo teewee woon nañ ko gannaaw audience bu njiitu réew mi Macky Sall daal dinay accordé euh, collectif suñu gaal ca kanam daal dinay wax rek ci spoliation suuf mouvement bi nag daal dinay xamle ni rekk njiitu réew mi Macky Sall daal dinay nangu seeni revendication te itam dal di leen acté rek lu tollook 4 hectares ci village Wakam Ngor ak Yoff àllarba bi nga xamante ne moo weesu muy le 27 bi passé ci bi dem euh, son excellence dalal ay ndawu tànk ba ñu notifié leen lu nga xamante ne jox nañ leen ko ci suuf sa aéroport bi muy 4 hectares 4 hectares yooyu ñu leen jox yàlla def na même su ngeen déggee am na émission bu mooy jaax ce matin may ñaax pour que si euh, camp gendarmerie bu Wakaam bi euh, ñu am luñ fi jox waa Wakaam lu waral loolu mooy que ne ñoom projet boobu ñoo ko porté woon ba tey ñu jox ci mais son excellence loolu la vraiment ndakate dégg na suñu ay wax ba ñu jël na fa un hectare jox ko waa jël trois hectares jox leen ko fii ci euh, aménage ba bi ñu te xam ne def nañ ko pour CDC ci CDC. naka noonee kuréel bi daanaka doyloowuñu ñi nga xamante ne ñoo di initiateur yi daal dinañ xam leen ni rek dinañ woyal seen i xeex rek ngir mën a jot ci suuf bi léegi lii mu ñu jox dinañ ko téye muy 4 hectares yi macha allah baax na mais nag doyul parce que tamit ñun du ñu jël def ay liggéey yu toll nii liggéey lu toll si près de 200 hectares 5000 et parce parcelles jàppal leen ko ñu ñu siy jox 4 hectares te projet yi ma leen ci wax yu si bari suñu demee mën naa leen génne ay documents am na ñu koy jël gis ñu ngi say joxe ay boodu gauche à droite au détriment des populations ñu nag. ñoo jàppale xale yi nañ toog rek taxirlu xeex bi ñu ngi koy xeex njàmbal li ñu ngi koy dox pour que saafara mën a am pour que vraiment apaisement man a am donc defe naa ne ay responsable ñooy wax responsable ak citoyenneté ak euh, vraiment patriotisme moo waral ñu bàyyi suñu lépp nekk ci liggéeyal askan bi pour indi solution entre l'État tànka ngor wakaam yoof daal dinañ booloo rekk ngir doon ab collectif ngir naka boole seenib doole ba jàkkarlook injustice bi lée naka noonu itam ñi ngi woo askan wi ngir ñu gëna doon benn amal ab organisation ba mën a jot rekk li ñu bëgg li nga xamante ni rek moom la ñuy te nekk njëriñu askan wi Khadijatou Ba buñ ca noppee dañuy demaat ca diwaanu Kolda ndax waa Kandiaye dalloo nañu seen bërëb bu fajukaay bu yees bi maire bu gox boobu nag di xam ne ni dina def seen kéem kàttanam ngir gën a mën a ñoŋal li nga xam ne moo daal di jëm ci wàllum paj mi ca boobu commune muy xam le ak ci lu ëpp ci lu toll fanweer ak ñetti millions ci sunu ay koppar def na ko ci boobu bërëb bu fajukaay ba tax kii di docteur Alioune Balde doon responsable politique ca biir APR moom Euh, di xam ne ni dina gën a mën a ñoŋal euh, nekkinu askan wi euh, ka ñu teewal ca diwaanu Kolda di Bokar Kandé. wergu yaram laata beneeni priorité mooy gis-gisu maire bu Kandiaye mu daal di wonewaat boppam ci bi mu tabaxee bâtiment bu bees bi ci biir post de santé bu Kandiaye. maa ngi remercier monsieur le président de la république ci jàppale bi mu ñu jàppale ndax li mu yokk fonds d'équipement yi yokk na bu baax a baax 2014 ak tey. ceeb visite guidée bërëb bu ne ñu jaar fa juróom benn salle fi nekk mu doon ab problème bi ñu dal di saafara. Euh, bi ñuy ñëw fii dañu fekk benn case case de santé boobu noonu ñu xawee bëri tuuti sax dañuy am problème. ñu ngi wane seen i mbégte ay bénéficiaires yu ñëw teewee cérémonie d'inauguration bi autorité administrative bi daal dinay ànd ak médecin chef bu département bu Vélingara. may may ñaax askan bi population yi pour ñu ñëw di gën a fréquenter poste parce que poste bi seen poste la bàyyi poste bi di dem Koungheul wala di dem Saré Coly donc loolu mooy yaa ngi néewal doole sa poste. damay dellu di remercier kilifa yu ngànk wàllum wérgu yaram ci diwaan bi euh, may jaajëfal bu baax a baax USAID e ndax moo ñu recruter sage bi ak infirmière bi. tabax ay poste de santé ak fexe yee salaat jumtuwaay yi ci wàllum mbéy docteur Aliou Balde daal di ci def ay jéego mu doon lu askan bi di rafetlu ñu daldi wër commune bu Kandia ngir gën cee am lu leer ñu àgg ci dëkk bi di ñandu ba. ñu ngi jaajëfal bu baax maire bi ci forage bi dina safara suñuy jafe-jafe ci ñàkkum ndox mu sell. at yi weesu Kanjaay amul woon benn forage fa mu ne ni nag ñu ngi ci ñaar yu nekk ci chantier juróom-ñeenti ferme intégré aménage nañ leen leen. dafa euh, am même vision que président de la république vision am c'est jàppale jigéen yi ak euh, xale yi ñi bañ a dem immigration clandestine importance bi. parce que luuma bi euh, chaque alarba la dañu ko téye fii ci jaww bi donc jigéen yi chaque alarba mun nañuy récolter seen euh, seen seen liggéey après ñu dem jaay seen produit ñu am xaalis loolu day participer ci économie euh, xale yi ci économie jigéen ci économie commune. tabax ay poste de santé ak école yeesalaat jumtuwaay yi ci wàllu mbéy maire bi am yeneen i projet mu doon ab ambition professeur d'université docteur Aliou Baldé nekk ku ñu fi naw lool. moo tax nag ñu falaat ko ci élection locale yi weesu. agsi nañu mbokk yi ci ñaareelu pàccu xibaar yi dañuy dem yër li gën a fës ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Fatima Diallo. ayca ñu dem daal di koy door ak la soleil le quotidien national journal bi ne ñu coow li bëri woon na waaye nag élection législative yi euh, suba la ci dibeer gi journal bi xëy daal di ne avocat lépp nag yemb na ngir nag électeurs yi seen lim toll ci juróom benn million ak lu teg ñoom ñoo war a départager juróom-ñetti coalition enquête yéene kaay ne la soleil taxawal ma tegal la ci direction générale des élections nee nañu matériel électoral bi lépp yemb na yóbbu nañ ko ci lieu de vote yi fukki fan ci biir réew mi ba ca biti réew journal bi pareegul ne coalition yi ku ci nekk nag am nga lu tollook juróom ñetti million jëm nag ci wàllu bulletin sud du quotidien desul benn yoon ginnaaw ci mbir mi ne Dakar Thiès Mbacké Ziguinchor saint kawlak pikin Pikine Guédiawaye Mbour Kër Massar Rufisque ba ca tiwaawoon yëglekaay bi jàpp ni nag lii mooy centre yi nga xam ne nag am na enjeu l'observateur le journal du groupe Futur Média ne enjeu dëgg bi kay moom moo nekk nag li nga xam ne moom moo am njeexital jëm nag ci wàllu wote gi ndax loolu nag am na loo xam ne dina am njeexital boo xam ne def na ko ci ëllëgu politique gu réew mi journal bi daal di ñëw ak ñun ci li nga xam ne moo aju ci carte électorale ba fi nga xam ne nag jàpp nañ ñi ndam li nag fa la war a nekk journal bi nañu abri provisoire sax la ñu nag ngir remplacer kook école école nga xam ne dafa de journal bi teg ci ni lu tollook ñaar fukki junni ak ñaar jëm nag ci wàll agent ñoom nag la ñu pare nag ngir ñu contrôler bu nu noppee superviser li nga xam ne mooy bureau de vote yi seen lim toll ah, ci fukki junni ak juróom yu tegal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn jëm nag ci wàll bureau de vote journal bi ne ñu ñi nga xam ne ñooy ñi ñuy woowee primo votant risque la jëm nag ci wàllu pouvoir loolu wàll Quotidien moo nu koy wax ba pare nag teg ci ni ah, taux de participation bi it dina nekk beneen enjeu les échos yéenekaay dal di dugg si ci làng gi ne ñu nag coalition Bokk Yaakaar absolue la ñu bëgg ci quatorzième législature ci jamono ji nga xam ne yeewi ak wàllu ñoom li ñuy war mooy cohabitation aar Sénégal ñoom it mën nañu am dara boo ko gis-gis liggéey ak serviteur ca geneen wet galaas yéenekaay ne ñu mbir mi kay suba lay leer suba ci dibeer gi l'info yéenekaay di ko feelu ne nag l'heure de vérité lu yàgg dëgg la bés bii la jour ne ñu assemblée nationale ci laay wax journal bi xëy def portrait pencum ndawi réew mi yëglekaay bi ne ñu am na lu ci lu tolloog juróom benn fukki at ak ñaar waaye di pencum ndawi mi ba léegi nag mi ngi jekk ndax nag lu tolloog juróom-ñetti coalition ñoom ñooy xëccoo pencum ndawi réew mi journal bi nañu lu tolloog téeméer ak juróom benn fukk ak juróom jëm nag ci wàllu siège vox populi la ñu ubbi journal bi xëy daal di tàbbi ci leneen yëglekaay bi wax ci fonction publique ak li nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko ciy def jëm nag ci wàllu jéego ñeel li nga xam ne moom mooy salaire yi journal bi nañu nag yokk nañu lu jëm ci wàllu salaire ñi nga xam ne nag ñoom ñooy agent état journal bi nañu nag mbir mi dina effectif effectif ñetti fan ci weeru u servateur wala journal du groupe Futur Média daal di dikkaat ne mbir moom nag nañu jàpp ni koor yëpp nag la ne waaye nag yokku gi nañu jàpp ni nag bu néewee ba néew cent mille francs lay tàmbalee libération yéeni kaay fa la ñuy jeexalee yëglekaay bi wax ci chambre criminelle bu Sikicoor journal bi ne nag kii mi ngi tudd Lamine Jeeju ginnaaw bi nga xamee ni nag dafa jël drogue ci noonu la daal di faat way juram bu góor ñu ne déeta waaye mu ne da ciy teg cousin bi <laughs> Fatima Diallo foofu sax la ñuy jaar yi jotaayu xibaar yi di jaajëfal képp ku ci jàppoon ba mu yemba euh, juróom-ñaari waxtu juróom-ñetti waxtu rédaction bu 2STV dina fi dikkaat jox leen xibaar yeneeni xibaar laata loolu woy leen di seetaan sunu ay programme jaa ngeen jëf